ànd ak xaritam di wëllëreem di Cheikh Abdoul Karim Niang di doom ci Cheikhu Cheikhu Sadou Niang ca Teeba Niangeen mu ngi daan ànd ak itam Cheikh Mouhamad Taha mi nga xam ne gàmmu gi wax waxtu nekk daaw rek la ko wucce boobu mu ngi Nigéria waaye moom moo ko daan dundal moom itam ànd ak mu ngi daan ànd ak itam ak Serigne Mansour Niass di doomu Serigne Mamoun ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi gërëm eh, sama xarit. sama sëriñ itam Cheikh Omar Dem dégg nga ak mbooleem njabootu Thierno Assane Dem yi nga xam ne teew nañ fi Seydi euh, euh, Arabi Dem moom itam mu ngi fi teew su ko defee ñu ngi gërëm Cheikh Mouhamadul Kabir mi nga xam ne mooy xalifaay Thierno te mu ngi jógee ba Mauritanie dégg nga demoon fa dëj waaye dafa wax ne du dem Dakar mukk lu dul daf fi jaar fekkee si dégg nga gàmmu gi kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla yonentu daan na wax ne fa man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minna képp ku amul yitte ci mbir yow bokkoo ci ñun kon war nañu ne dëgg-dëgg dégg nga xalifa la waaye xilaafaam gi itam wane na mbóot mi yal na yàlla yàggal ko ci suñu kanam ci ngi gërëm Baye Dramé ni nga xam ne mooy suñu bunt ci Thierno nga di ko yàlla yal na yàlla fayante moom ci lu baax mag moo xam ne ci suñu biir. Seybatul Hamdila ku sonn suñu biir ku ñuy ñeme loola ku ñuy taxaw la itam dégg nga ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ñu ngi ñaanal yàlla suñu bunt ci moom moom Baye Dramé di Baye Ousmane Dieng mi nga xam ne moo ñu yar luñ man ak fuñ mën a toll ak luñ mën a sampu dégg dëgg-dëgg moom moo ñu ci teg moo ñu ñemeloo dégg nga yàlla yokk ko yal yàlla sàmm ko sëriñ bi ñaana leen ñu ko yàlla bu baax a baax a baax su fi yàggee rek faydu baay bii dina gën a fu nekk ci bi ñu ngi gërëm sama sëriñ Seydou Mawlaaya Imam Malick si mi nga xam ne moo ma yar dégg nga nekk Kaolack depuis ma nekk lu ndaw nekk ci moom dégg nga mu tarbiya ma ba buñ ma nee dara itam ci yàlla dëgg-dëgg yàlla moom yal na yàlla fayante moom ci lu baax moom ak mboolem njabootam ñu ngi fi teew ginnaaw loolu ñu ngi jëkkal bu baax parce que ci koor lañ toll ci temps baa ngi dem arab yi wax ne al waxtu ka sayfi in lam taqtaahu yaqtauka waxtu mu ngi mel jaas yi mu ne boo ko dakkul mu dagg la dëgg-dëgg ñu ngi bu baax te sëriñ bi ñu koy xaar ci thème boo xam ne mooy azkuruni azkurkum yàlla moo wax ne tudd leen ma tudd leen xam naa dinañu wax moom yàlla moom naka la ñuy tuddee dégg nga ñun moom xam nañ ni ñu koy tuddee yàlla yàlla tëgg nangam waaye moom yàlla nu ñuy tuddee dëgg-dëgg bëgg nañ sëriñ bi nga firi ñu loolu di gërëm suñu parrain bi ak marraine bi booy ab Baye Amadou Camara ak Seyda Nene Daaf ñu ngi gërëm itam eh, Seydi Abdoulaye Guèye mi nga xam ne dégg mu ngi ca ministère du commerce mu ànd sëriñ suñu suñu tonton eh, oustaz eh, suñu tonton Alioune Fall mi nga xam ne ni ko oustaz Diouf waxee léegi dégg nga ci këram lañ nekkoon fii nii biñ xawee tumuranke fii ci Mbour moo ñu fat dégg lu nekk mu ñu koy defal bañ mën a amal suñu bopp fu ñu nekk ñu ngi koy gërëm ñu ngi ñaan ñaanal yàlla yàlla dina fayante moom ci lu baax incha allah ginnaaw loolu itam di fi may euh, continuer tuuti mooy oustaz mi nga xam oustaz Malick Thiaw mi nga xamante ne moom mooy président ansaaru din bi fii di ay muqaddam yu baax yu barkeel ñoo xamante ne ñoom ñoo yor faydu bi fii ngànk ko di ko dundal dégg di yar ay ndaw di liggéeyal baay ci anam bu nekk en même temps nekk professeur ci lycée Demba Diop ñu koy ñaanal yàlla bu baax mboolem kàddu yi nga xamante ne wax na ko fi ci lu rafet ci ñun ci moom la nekk moom mag mag mu baax la mag mu yaru la mag muy dimbali itam dégg nga ay ndaw ñi nekk ci ronam yal yàlla fente moom ci lu baax ginnaaw loolu sëriñ bi li ñuy def mooy dafa am suñu mbokk taale boo xam ne ci euh, mois de novembre yaakaar naa ci bisu layla katmiya bi ci la fi wàññeeku woon moom la ñuy rendre mooy Thierno Seydou Top mi nga xam ne man su ma demee Fuuta moom mooy sababu sama demam Fuuta moom mooy yóbbu Fuuta ba tey ñu ngi sant yàlla boobu noonu bi ma yóbboon yàlla barkeel na ko dégg nga ndax euh, wax dëgg yàlla Fuuta euh, mu ngi euh, avancé ci lenn ci ay faydu ci xadra bii nii te moom moo nekkoon sabab bi yàlla jël ko dégg nga yàlla moom comme ni ngeen ko xamee ni ko papa Ousseynou doon wax. ku ñàkk kilifa la kenn yëlifut ko dégg nga lu ko neex ci coobere coobereem ci lay doxee dégg nga su ko defee loolu nag mu defal ñu ko jeune boobu nga xam ne ku ku ku la woon non seulement enseignant la woon waaye en même temps mu ëlbatiku nekk mu xaddam fu nekk yóbbu na ma ko ci Sénégal dem naa ci alam boo xam ne ci Mauritanie ci diggante Mauritanie ak Sénégal ginnaaw dóondu ñu xam foofu war fa xam bi ma fa demee daanaka suñu mbokk sunni bi nga xam ne dañuy weddi tere xarit fa nekk imaam bañ ma dalaloon sax ci ñoom la bokk ñu def fa jotaay boo xamante ne mu ne ma yow li ngay wax ci tarixa tijaane est-ce que yenn ci tijaane xam nañ ko parce que man tarixa tijaane moom mooy doon a leer tey li nga wax ni loolu dëgg kenn mënu koo dindi am na fa góor boo xam ne Thierno Mansour Baro moo ko joxoon tarixa tijaane ya te mu màgget lool dafa génn kontaan. ne ma 32 ans maa ngi fii ci dëkk bii di wir di sama wir te ñemumaa feeñ yow yaa ma feeñal tey boo fi ñëwaatee diwén man maa ne mi réel nag Thierno Seydou moomu fu nekk yóbbu nañu fa su ko defee moom lañuy ñu rendre hommage ci bis bi mënuñ ko fàtte benn yoon ndax taxawaayam ci xadara bi ak ni mu doon dundalee itam xadara bi soxnaam mu ngi fi benn doom la bàyyi te mën la ko tuddee itam sëriñ bi ngeen ñaan ko yàlla yàlla guddal fanam ci barke Baye. E, rakkam bu góor itam mu ngi fi duñ def lu dut jox ko li nga xamante ne moom lañ ko war a jox xaw ma rakkam bu góor bi mooy ñëw xaw ma e, rakkam bu góor bi ne ñëw mu joxal ñu soxnaam bi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne di e, saw mu toog fu mu nekk mu ñëw ñu jox ko lii te gaaw heure bi twenty one jaamu yàlla àdduna bii àdduna boo xam ne lu jaxasoo la te dara jaxasoo ko lu yi rek ñoom ñoo tilim xol yi ñoom ñoo lëndëm guerre yi ngay dégg yëpp rayante yi ngay dégg yëpp dégg nga euh, sàcc yi yëpp ak yeneen ak yeneen dara defut ne nit ñi seen xol yi ñoom ñoo feebar te loolu yonent waxoon nañu ko inna fil jasadi mudghatan ida saluhat saluhal jasadu kullu wa ida fasadal jasadu kullu allah wahiyal qalb nit am na lumb bu nekk ci biir jëmmam mu ne lumb bi su nit ki léppam baax na waaye su lumb bi bonee nit ki léppam bon na te loolu moom mooy xol bi Baay Ñas nag li tax àddina bi topp ko mooy xol yi la jël defal ko ci yàlla yàlla waxoon na xajuma ci asamaan xajuma ci suuf waaye xaj naa ci xolu jaam bi ma gëm ba noppi mu ëlbati ko ne man maa leen gën a jege seen bopp su ko defee loolu nag bàyyi addina bi du jàng mori moo tax ñu topp Baye Niass su fekkoon noonu loolu la Mauritanie fii la xam-xam jóge koo dugg ci Sénégal ñooy suñ sëriñ ci tariqa ñooy suñ sëriñ ci xam-xam waaye suñ ëlbati ko ñu topp Baye Niass dëgg-dëgg lu xel la nañ ci bàyyi xel kon maa ngi wax nit ñi maa ngi wax addina maa ngi wax Sénégal maa ngi wax fu nekk nañ góorgóorlu ñu xeeñtu Baay Ñas radiyallahu anhu duut lasraar moo tax Baay Ñas siiw gis naa koo xam ne mu ngi wax ba ne kalsam bi bàyyi doon si carte Nigéria man yor naa kooku xamul dëgg-dëgg bañ laajee naar bi li naar li naar bi tontu woon kan mooy Cheikh Ibrahim mu ne Cheikh Ibrahima sha'nun min shu'unillah Cheikh Ibrahima mbir la ci mbiru yàlla yi Cheikh Ibrahima di mbiru xaatim du mbiru kalsam du reen du sunguf du dara lan la yàlla rek la yàlla lay def ko ci xolu nit ñi nit ñi di jàkkaarloog seen borom waxtu nekk loolu la ñu bàyyi defal maa ngi dégg ñu naan moo lay wax ne la ha anta wa rabbuka ha anta wa rabbuka am na kiiraay bu sew ci nekk te wa wa bi dindil wa bi rek dégg nga dindil wa bi rek ha anta rabbuka jeex na bàyyi foofu la yéegee ay taalibe su ko defee ñu ngi gërëm beneen yoon mbooleem góor ak jigéen ñi fi teew sëriñ bi tànt bi fees na. doon ñun ñoo leen tarbee ñoom ñëpp waaye nit ñi dañoo bàyyi seen yitte yi ñu ñëw ñu woo leen ci Cheikh Ibrahim woo leen ci diinul islam woo leen ci tariqa tijaaniya woo leen ci lu nekk ñu bàyyi seen yitte yëpp ñu wuy suñu ñooñu mënuñ leen fay yàlla yàlla fayante ñoom ci lu baax eh, képp koo xam ne itam suñu kàddu agressé na la duloon leen ci jublu woon waaye liñ jublu woon rek mooy liñ doon wax rek ak diinu nasiha diine laante bi rek la mooy sa ñuy wax su samay euh, waa kër samay nijaay sama mag mi nga xam ne moom lañ bokkal léeg baay samay goro sama xarit itam di euh, Cheikh Mara di Cheikh ci tariqa Qadriya mu jàppal ma boppam bëggal ma boppam te mën na maa jur waaye waxtu nekk day jóge ba Thiès di ma seet si ñu ngi koy gërëm ñu ngi gis teewaayam itam ñu ngi gërëm mbokki taalibe yi sëriñ bi mbokk taalibe yi jàppaat nañ bu baax ci gàmmu bi liñ am ak liñ amut def nañ ko ci gàmmu bi ñu ngi ñaanal leen yàlla yal na yàlla eh, dëgëral leen yàlla dimbale leen yal na yàlla jotal leen seen mboolem càkkuteef su ko defee ñu jéggal ma ci guddal bi ndax sëriñ bi dafa war a continuer dem Dakar suba ci programme Oustaz Ali Ndaw su ko defee eh, kàddu gi gudd na dégg nga Euh, mboolem njabootu Ceerno ñu ngi fi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla sama xarit di Baye Gallo Sarr ñu ngi koy gërëm Baye Mbara Siñaan Seydi Ali Harrazim dégg nga moom itam euh, jege bi xëy na démb moo ñu fi defal conférence bu neex ci ci ci aljuma ñu bokk moom zikrul jumaa boo xam ne macha allah yal na yàlla yokk ko yal na yàlla dëgëral ko ci barke Baye ñëw na fii Mbuur dëkk si ak ñun te Baye Dramé waxoon na ma ne. Thierno mus na wax ne day tuxu Medina nañ ko wutal fu mu dëkk ca Mbuur ak Thiès yónnee woon yàlla def ñu génne ko ci mu toogaat kon suñ demee ba doomam ñëw ne dafay dëkk seeg ñun Mbuur dëgg dëgg xaatimu Thierno bi dëgg la Thierno nag seydal ne ne daaf yow miy nekkal fii Macky Sall ñu ngi lay ñaanu yàlla yàlla àggale mission bi Macky Sall itam yàlla yàlla àggale mission ci ci ci ci Sénégal waaye. ki nga xam ne moo yar Macky Sall tey ba mu mën a eh, eh, jël Sénégal te mooy président Abdoulaye Wade dégg nga kii waajuram moom moo garanti woon Abdoulaye Wade moo ne ko woon donte ñetti fan di ko toog ci Sénégal te booba ñeme Abdoulaye Wade yombut te kàddu googu bi Abdoulaye Wade toogee ñu bëri moo moo nañ kàddu googu jël nañ kàddu googu te ki ko waxoon mooy Mawlana Cheikh Nassane Deme di kenn ci kolo kolofaaw Cheikh Ibrahima nekkoon Medina. te ki mu jëloon seede témoin moom Thierno mu Cheikh Mahi Niass doomu Baye moom mooy tegu ci te ak maître Ousmane Ngom ba ko Cheikh Mahi maa ngi toog ci buntu kër Thierno Assane mu ne man maa nekkoon seede Thierno moo ko nekkoon ren ren ren soo bëggee jot Sénégal dinaa la fan nga mu ne ko Sénégal amul xaalis damay ragal jël ko ma am problème Thierno na ko yàlla dina indi xaalis xoolal nguur Abdoulaye Wade dina xaalis bare. ñëpp xam nañ ne xaalis tasaaroo na ci Sénégal Thierno moomu moom moo ne ñi ñii nga xam ne dégg nga waxoon na ne man du ma jur mukk ku ku ku wàññeeku ku mat rek laa jur kon ñu mat lañ nekkal ñu ngi sant yàlla ci ñoom yal na yàlla fayante ñu ci lu baax ñu ngi gërëm mboolem ñu fi teew maa ngi jéggalu ñoom ñoo ma tuuti kii bi rek may wax rek dégg nga waaye maa ngi maa ngi bolo xàq wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa salli ala sallam Baye Demba jërëjëfati na yàlla fay ayu xanaa gi na am na solo Baye Demba Baye Demba ma ne soxla ngeen ne nii soxla ngeen ne nii ku baax la xoolal daal mu bëgg nga seede ko rek sunu sëriñ bii di Alioune Harazim noonu la tudd na fi kër madame yaakaar naa sunu sëriñ bii amagu fi kër fi mu nekk dañu ko ko dafa luyee